asalaamaaleykum euh, mbokk internet euh, Sénégal yéen a ngi euh, en face de votre émission Nay Leer di reprendre encore service ñëw tey di dalal koo xamante ne gars yi xam nañ ko bu baax muy Moussa Sow Thiam di responsable politique jot na bokk ci grande coalition bu fi amoon muy CRD coalition bu ñoom abdul mbay mu nekk aussi un homme politique bu nit ñi gën a ràññee ci département bu Saint-Louis Euh, Moussa Sow Sénégal mu ngi lay dalal ci émission nay leer euh, jërëjëf Malick euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Sénégal di leen jaajëfal si dalal bi ngeen ma dalal ah ñu fas yéene waxtaane fii loo xam ni dafa soxal réew mi am yaakaar ni sunu waxtaanee buñ fi jógee dinañ fi wax loo xam ni dana jariñ jariñ askan bi a ah, jërëjëf euh, musa saw ginnaaw bañ la dalalee question politique yi bari na lool lu ci mujj gisoon nañ ne en conseil des ministres lu mel ni président de la république génne woon na communiqué di wax nañu xool naka la ñuy def pour amnistie kii di Karim Wade ak xalifa Sall ñu bëggoon ci xam yow en tant que responsable politique bu jot na ban position ngeen adopté par rapport ak loolu waaw euh, merci Malick si laaj bi euh, am kontante bu baax a baax euh, tey di wax ci loolu ah ñun au niveau de la coalition jot na amagun si benn position boo xam ni ça concerne la coalition mais man personnellement am na si gis-gis par rapport ak li nga xam ni président yëkkati woon na ko ni ki nga xam ni mooy Ismaïla Madior Fall de ministre de la justice na fexe ñi nga xam ni dañoo perdre seen ay droits civiques et politiques fexe nu leen delloosiwaatee bu ko defee ñu mën a dugg ci langue politique bi continuer seen ay activités wax jooju nag kenn moomu ko bu kudul Karim Wade ak euh, ak ak Khalifa Sall. ndax ñu rappelé ci loolu du ñu amnistie ay nit ay fee la ñuy amnistie pour ñi ñuy seetaan. waaw dañ rek wax ji ñoom ñoo tax wax ji jóg. <laughs> ndaxte nee nañu bu wax wérul. ay nopp yëgay déglu nañu wér mhm. tuddul xalifa tuddul karim waaye xam nañu moom moo tax ñuy wax donc mu nekk loo xam ni man dans un premier temps dama koy rafetlu mhm. parce que yàgg naa ko wax ma ni ñooñu danoo war a dellu si waat si si gi te sax dellu si ñooñu seen langue gi moom mooy tey président en fait dana gën nekk à l'aise politiquement parce que dara arrangé wu ko tey une forte opposition derrière une personne en face de lui Euh, wala bon en face de lui wala en face de son candidat en tout cas il n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à sa candidature loolu kanam mhm. en tout cas loolu dafa nekk loo xam ni ñàkk pexe moo tax président def ko xam na ni tey bu deful loolu tey ku ci mel ne Ousmane Sonko mu ngi koy xàllal yoon bi te boobaa ñëpp dañuy dajaloo ci ginnaawam fal ko mu nekk président de la république en 2024 moo tax tey mu ubbi jeu bi ubbi jeu bi mooy fexe ba ñi nga xam ne dañoo perdre seen droit civil ak civique ak euh, politique ñu ñëw dellusiwaat si langue gi te kooku mooy condamnation yu ñu defoon Karim Wade ak condamnation bi ñu defoon Khalifa Sall ba ñoom ñu génnoon leen si fichier bi maintenant Ismaïla Madior Fall bi nga xam ni fan yële dégg naa ko muy wax dafa ni ñi nga xam ne ñu ngi laaj li ñuy wax révision de procès dañu xamul lu ñuy wax parce que révision de procès bi mënul am lenn moo mën a am moom mooy il faut que ñu am ay éléments nouveaux élément nouveau nag kan moo ko war a indi est-ce que état bi dañuy indi élément nouveau pour ñu def révision de procès wala tey Karim Wade ak Khalifa Sall dañuy nag élément pour ñu def révision procès donc dama gis ni la gën a yomb tey mooy ñoom ñi nga xam ni lii ñuy def ça les arrange ça les permettre ñu ñëw duggaat si langue politique ñu bàyyi seen caaxaan yi te xam ni lii ñuy def pour ñoom la et c'est une demande sociale parce que boo gisee ñu bari tey mere président de la république ñoom li leen écarté ci la su ma la déggee baax kon na jàpp ne Macky li tax mu bëgg ko def stratégie politique la mais du leneen du baaxam du leneen non c'est stratégique c'est intelligent mhm. de le faire mhm. c'est-à-dire c'est pour diviser l'opposition la meilleure façon de gouverner c'est de diviser. mais tey bu nekkee réew mi aussi dañuy dem rek di ko politique politique politique pour diviser opposition bi ci ñoo xamante ne dañu jël ay alalu askan wi ñoo xamante ne tuumaal nañ leen ne ñoom ñoo sàcc ba yoon topp leen ba daan leen nga bëgg leen jëlaat rek andi te gisuñu xaalis gisuñu dara. waaw kay fi nga daanalee sax laay wax c'est-à-dire ay tuuma la woon malgré yaa a eu des condamnations. Mm-hmm. ba léegi amuñu dara lu teg lu leer si loxo sénégalais yi nit ñi lii ñoo ko def. Mm-hmm. ku si mel na xalifa sal moom son cas IGE mooy def rapport moom mu defee rapport condamné wu ko épinglé wu ko dafa ko dafa ni tout simplement. ci conclusion am il faut revoir mhm. façon bu ñuy gérer caisse d'avance mhm. donc waxul ne Khalifa Sall dafa jël mhm. après le gouvernement a saisi cette occasion pour en fait éliminer un adversaire de taille en son temps en 2019 aussi musul wax ne jëlul non xalifa musul wax ne jëlul bañ ko laajee dafa ne ni ko gaa ñi daan utiliser laa ko utiliser waaw mais loolu mooy jëluma de pour doon ñu ko jiitu dañ daan jël nag non ni ko gaa yi utiliser noonu laa ko doon utiliser ça ne veut pas nga jël dafa ni daal forme caisse d'avance bi fi nekkoon moo doon dañ doon dimbali ay nit di ko jàll ci caisse d'avance di régler ay problème xam nga donc loolu la fi fekk loolu la continuer peut-être nag euh, nin ko doon gérer manque de transparence loolu moom am na amuloon benn justificatif par rapport à ça ba jusqu'à présent nee na am na ay liste ñoo xam ne tey ñooñu bénéficier wu nañ si tudd na sax ñi nga xam ne jege nañu nguur gi mm-hmm. mais loolu aussi Euh, mu doon wax ni daal pratique yu yàgg la donc ci moom lan ko appliquer par rapport ak gestion bi ku si mel na Mamadou Diop yàlla na ko yàlla yërëm te nu moom newoon na pare na pour témoigner ku si mel na Pape Diop donc loolu yàggul ñoo ils sont encore vivants donc li mu def daal moom li gaa yi doon def Macky Sall ci boppam en 2009 bu mu nekk dans l' opposition Khalifa Sall nee na xam ne bu wax caisse d' avance bi donc c' était purement et simplement pour éliminer un adversaire politique kon dafa mel ne benn cercle vicieux rek boo xam te day jóge ci politicien yi del ci politicien bu yàggee dafay mel ne ab yebel ci askan wi. waaw loolu mënoon ko tuddee ab yebel na ko tuddee ab yebeel yebel mënoon wax ni tamit euh, nekk na loo xam ne daal vraiment war nañ ko joyanti ci façon faire politique fii si Sénégal ànd naa ak yow euh, loola neex def dam lay laq ànduma ak yow saa yu ma jekkoo dam lay faagaagal donc daal façon politique boobu mu nekk benn jungle boo xam ni. amugul amul benn élégance par rapport ak adversité bi nga xam ni war na mën a am kii di opposé kii di gérer au pouvoir si jàmm ak salaam. tey yow bokk nga wàllu gis nañ ne tey Abdoul Mbaye ak compagnie bokk wàllu nekkoon foofu gis nañ ku mel ni euh, Ousmane Sonko à chaque fois dafay attaqué jëmale ko si ñoom que ñoom duñ ay vrai opposant waaw xam nga Ousmane Sonko dafa bàyyi di wax euh, moom mooy vrai opposant un vrai opposant euh, ne veulent pas dire que ni tu dois être radical. que tu dois euh, mais, mais aussi, mais aussi fu ñu toll ci réew mi. amul kenn ku mun a werante que ne Ousmane Sonko du un opposant boo xamante ne mooy premier opposant Macky Sall tey. non ça je ne dis pas le contraire. mais bu mu traité ñeneen ñi. ñi nga xam ni du ay opposants mhm. c'est-à-dire wax mhm. je lui reconnais son leadership dans l'opposition mhm. mais qu'il donne respect aux autres leaders de l'opposition ñoo xam ne tey bokk na ak gis doo attaquer gouvernement bi ci n'es pas dans l'opposition moom il a un combat personnel à mener avec le régime en place parce que loolu dina si tuuti par rapport à son mhm. procès qui qui qui qui est en mhm. cours dinañ si ñëw donc tey jii man du ma d'accord mu ni ñu mel ni ñoom Abdoul mbay ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey duñu attaque nguur gi duñu ay opposants ñoom tout le temps des fois euh, dañuy sax euh, mettre en mal yenn oppos yenn opposants yi yi nga xam ni dañ leen traité de de, de, de des opposants mhm. en fait euh, de l'opposition mhm. alors que tel n'est pas le cas ku si nekk am nga façon bi ngay opposé y des opposants républicains y des opposants yoo xam ni euh, qui sont catégoriques y des opposants yoo xam ni euh, qui sont en fait qui sont en fait du juste milieu mhm. s'il s'agit de dire la vérité sur l'intérêt des Sénégalais gars yi doon koy wax tout simplement et courtement waaw gis nañ ne élection législative yi ñu génn coalition bu ñu naan wàllu mu yéen yéen da ngeen am dem ngeen ànd ak ñu ñu naan yeewi askan wi te yeewi askan wi tey fa la Ousmane Sonko nekk mais ce qui est bizarre mooy yéen seen toogaayu biir assemblée daf mel ne juboo woo leen sax ci ay kàddu. waaw euh, gis nga loolu noonu c'est vrai nous sommes dans l'opposition àndoon nanu ak waa yeewi ñu créé li ñuy wax intercoalition. Mhm. loo xam ne c'est première. loo xam musul exister musul exister d'ailleurs dans l'histoire politique du Sénégal c'est inédit. Mhm. ça en politique. Mhm. par excellence. donc loolu noonu Sénégal yu bare di ko fa rafetlu mu nekk sax une nouvelle euh, une euh, méthode mhm. de faire de la politique et de faire de et de et de et mhm. les forces mhm. parce que kenn xalaatu ko woon chacun d'entre nous a maintenu sa coalition a eu une tête de liste dem élection et les les les les investitures dans les départements on les a partagées am na si foo xam ne yeewu moo fay jiitu mais dañ fay am benn investi boo xam ne wallu la bokk ainsi de suite am foo xam ne wallu moo fay jiitu am fay investi yeewi donc loolu inter jur intercoalition bi tey mhm. ba nu am au total maximum quatre-vingts députés mhm. et député nag am na si ñoo xam ni ils sont carrément mhm. wallu ils sont carrément de carrément de yeewu mais c'était une coalition électorale qui benn objectif bien déterminé c'est-à-dire après les législatives ku si nekk da ngay dellu sa base dellu fa nga nekkoon après ñu dem ci élection parce que euh, l'opposition va prôner li ñuy wax la candidature plurielle c'est-à-dire mhm. maximum de candidats dans l'opposition léegi nag ki jiitu ñëw deuxième tour au cas où bu nekkee ni benn boo ko yaakaar jàll na mhm. deuxième tour yaakaaruma ko sax mhm. maintenant mais mais li ngeen am li ngeen am ci nombre de députés gisoo ne loolu saxax Ousmane Sonko la waa ñu bare dañ koy wax mais aujourd'hui bu ñu defee répartition des. ndax réalité yi aussi moo wane loolu même bu nekkee ñu bëri dañ koy réalité yi moo wane loolu. ah mais xam nga lan moo lay wan ni. Mhm. du Ousmane Sonko moo tax. Mhm. tey jii wallu am li mu am si député. mais am na ci quand même grande part de responsabilité de responsabilité. il a mhm. il a porté le combat de l' déjà du woon candidat. mais mais moo xeex sa solidarité. son engagement son courage de porter la coalition. au niveau national. Mhm. parce qu'il n'était même pas candidat. Mhm. mais loolu dama koy rafetlu. Mhm. mais faut pas dire que à quatre vingt pour cent wala à cent pour cent c' est grâce à Ousmane Sonko. parce que boo dee xool la répartition des des voix. de la de l' opposition. de Yewwi et de et de li mu amoon si local yi. c' est cent et quelques mille. voix loolu la si législative bi. Mhm. donc il a consolidé ce qu'il avait les acquis. donc suñ la déggee mooy. yeewi andilu leen dara donc Sonko li mu indi woon moom mooy sept cent et quelques mille voix yi. Mhm. donc y a eu quelques poignées de voix yoo xam ni dafa yokku. Mhm. dans les département comme que raw gàddu la raw gàddu nag. mooy boo rawee da ngay gàddu. une voix de plus ci prends tout. looloo indi ngay am des nombre de députés. mais y la contribution de wàllu. et la contribution wallu looloo tax tey. l'opposition réunie mhm. tey ñoom ñooy raw Benno Bokk Yaakaar mhm. donc c'est tout juste ça parce que ku si nekk da nga indi li nga indi on a mutualisé les forces pour mhm. am li ñu proposition de loi Mimi Touré nañ waxtaanee kaa am tuuti biir assemblée nationale mu ngi bokkoon euh, Benno Bokk Yaakaar nekk euh, membre APR te ba tey fa la bokk ba tey jógu fa mais dafa démissionné ci euh, seen présidence bi foofu noonu donc Mimi Touré dafay dem moom seul presque bokkatul si bureau beeg ça donc euh, gis nañ mu def proposition de loi boo xamante ne dafay wax ne affaire u xeet Macky Sall ñu ko gën a jege rek lay fal ban réaction tey nga ci am Moussa. waaw euh, euh, merci si laaj boobu parce que ki def proposition de loi bi c'est-à-dire moom elle est mal placée pour faire cette proposition de loi. quoi lu tax elle était aux affaires elle était premier ministre. Mhm. nekk ministre de la justice def traque des biens mal acquis. Mhm. tey doon défendre le petit frère du président Alioune Sall. Mhm. mooy ban koy accuser fii euh, mbirum mm, pétrole. pétrole quatre cent mille Sénégal. ba ñuy nommé fii Alioune Sall. muy nekk euh, conseil dépôt et consignation. elle n'a pas réagi. Mansour Faye. depuis que le gouvernement est gouvernement il est toujours aux affaires. Ah? combien de postes responsables ministériels la fi yor. Mhm. budget moo gën a rëy ci budget ministre yëpp. Mhm. presque mille et quelques milliards. Mhm. Mimi Touré fan la nekkoon donc aujourd'hui l'idée sur le principe. je ne peux pas dire que c'est pas bien. c'est bien mais c'est-à-dire daf ko def en fait pour exister politiquement. pour combattre en fait euh, pour faj mer. par rapport. ak promesse bi nga xam ne président de defoon na ko daf koy def. da nga jàpp tey bu nekkoon moo nekkoon euh, président assemblée tey loolu doom am. non loolu kenn du ko waxati. Mhm. c'est-à-dire li ma wax léegi. Mhm. ci Alioune Sall ak si Mansour Faye mu mhm. si yàbb yéey si. ça veut dire que bu ñu ko defoon président assemblée nationale du mës a def proposition de loi bi. on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. soit tu dans le gouvernement ou tu n'es pas dans le gouvernement. maintenant comme tu elle a opté aujourd'hui d'être un député non inscrit peut-être bon. euh, elle va faire mal ah. Mm -hmm. je crois même bon elle est en train de travailler ci biir Benno Bokk Yaakaar am na ay suspicion yu may dégg y a eu une démission bu ma dégg xaw ma mhm. bon c'est lié ou pas en tout cas mhm. elle fera tout pour rendre ingouvernable wala dans une position inconfortable bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar dina noon am ci biir assemblée nationale mhm. mais par contre la proposition de loi en tant que telle c'est bien parce que boo nomee sa mbokk nga nommé sa frère nga nome sa sœur. Mhm. mën na def ay jalgati yoo xam ni cest à boo ko waroon topp si doo ko topp si yoon. donc yow d'accord nga ci loi bi mais posture ko andi ki mhm. moom ci boppam posture bi bu mu jël di ko xeexee quoi mhm. bu mu jël di xeexee loolu parce que gars aussi ils savent lire entre les lignes xam nañ bu baax en fait euh, fu mu jëm daal hmm. ndax dégg nañ ko moom mu ne bon lu lu tax sax mënut a jubóog Macky Sall mooy mooy question de troisième mandat bi yow troisième mandat wala deuxième na lan la ci. Euh, troisième mandat lay doon. Mm-hmm. parce que y a déjà un mandat exercé de sept ans. Mm-hmm. Macky Sall mënul mu ni. 2012 ba 2019 defuma mandat. Mhm. au moins il a fait un mais Macky musul wax musul def bonne foi waaw mais Macky Sall def mandat 2012 ak ba 2019. loolu ko wax. waaw mais xam nga loolu aussi il a fait un mandat. waaw mais ci diggante bi am na li fi amoon muy référendum bi. mais d' accord mais def na benn mhm. mandat on est mhm. d' accord comme def na mandat nag. na ni wax dëgg yàlla def naa mandat. de sept ans. mais constitution bi tey ji ba ma koy wëlbati. boobu mandat sept ans bi taxuloon may wax. Mhm. au moins nit ñi dinañ dégg sax xam ne lii mu wax yenn maanaam. Mhm. waaye bale bokk ma si maa ngi doog a commencé Sénégal loolu la mënul nangu. Mhm. te def naa nag gor ca wax ja. gor ca wax ja moo doon comme def na mandat. defaat beneen mandat te na woon na du ma defaat mandat na bañ sukkandiku ci constitution bi si article vingt sept. pour wax ni mandat bi cinq ans la renouvelable une seule fois donc benn mandat la benn mandat. donc loolu noonu moo nu boole woon ak Abdoulaye Wade en 2012. Mhm. mais est-ce que contexte yi aussi benn la. même contexte la dara changé aussi. Mhm. c'est-à-dire euh, li naan les mêmes causes ak. produits mhm, les mêmes effets uh-huh. la amoon moo amaat. ku def benn mandat. bëgg xëy ni ba ma defee mandat bi bokkuma si bokk ci dégg dama defaat beneen mandat loolu indi woon coow li. coow li nag moom ci boppam moo ko mën a fay ni mu ko mënee fay mooy tey mu am grandeur taxaw ni. comme maa waxoon defoon dama bu ma def ñaari mandat mhm. te def naa ñaari mandat benn sept ans ak benn sept mhm. benn cinq ans donc wax dëgg yàlla man mënatuma présenter waat mhm. mais nag ñi ko wër ñëpp te ñu ngi taxaw waa gis nañ ne bon vague benn vague boo xamante ne jóg na lépp pour soutenir pour troisième candidature président mais ñoom dee tuddeewuñ ko troisième candidature dañ naan deuxième quinquennat waaw mais xam nga troisième candidature bëgg wax deuxième quinquennat dañuy gars yi mënu muusu waane ba nu fàtte ko mhm. deuxième quinquennat lay doon bu dee bu dee bu tey candidature valable nan validé nan ko au niveau mhm. du conseil constitutionnel mhm. bu te beneen lay am deuxième quinquennat kenn warante woon ko mais sept ans bi romb bi c'est-à-dire moom la sénégalais yi mënul comprendre ñoom léegi fan lañ koy dugal xanaa kenn du wax sénégal depuis 2012 ba léegi amuloon président donc yow da nga naan y avait un président da nga naan non au troisième mandat ah yow da naan non au troisième mandat troisième mandat. Mhm. non troisième mandat. Mhm. même si je suis républicain. Mhm. je dois ma ma ma ma ma ma conformer à la constitution. xam nga c'est domage foofu la ñu mujjee ji mooy li nga xam ne amoon na fi Ablaye Wade ba ñu demee ñu valider ko. mais boobaa aussi les Sénégalais vont tirer en conséquence seulement pour éviter que moom qu'il sorte wax ma par la fenêtre de. par une humiliation boo xam ni bu kenn musul dund dans le monde bu mu présenté wu. mais les, les Sénégalais ne vont pas en fait le réélire. Mhm. parce que dañ ko war a réélire sur la base de quoi. Mhm. parce que ici dañuy respecter ay principes. respecter ay valeurs respecte doo xam ne tey nit ki boo ko waxee na nga ko war a def. parce que mhm. la population est assez mûre et assez intelligente pour. pour pour régler sa mais da nga gis ne posture Macky Sall tey bu mu nekk di mettre en place dafay dem directement pour defi candidature am boobu. non loolu moom c'est clair. Mhm. parce que nee nu doomu naar lu mu wax ci xay xayma ba mhm. sa berkele ba da ko déggee. Mhm. parce que ñi ko gën a jege en commençant par euh, par euh, c'est-à-dire par Mama Niang ba muy nekk euh, avant muy nekk ministre du tourisme. mos na génn en tant que. Euh, quelqu'un qui dans son cabinet mm-hmm. génn wax mm-hmm. le président dafa war a présenté wu les yi nga xam ne tey ñu ngi wax ñooñu ils sont très proches du président mm-hmm. donc mu ngi def benn sondage pour xool population bi na la ñuy euh, nan la ñuy accueillir information ak message boobu mais nag la population nee na tekk et le silence ça parle léegi nag xamagul population bi nan la ñuy réagir par rapport à ça en tout cas daal il va droit au en fait pour se présenter parce que ou bien un dauphin. Mm -hmm. il mhm. faut le présenter dès maintenant aux populations et faire sa promotion sa propagande. Mhm. pour que nit ñi mën a xam ni kii mooy sa candidat comme jusqu'à présent loolu amul. Mhm. et on est à un an quelques mois de l' élection présidentielle. comme def nga ko ba léegi man dama jàpp ni day présenté ah gis nañ ne la dernière fois ba nit ñi gàmmujee ñii demoon Tivaouane ñii dem Kaolack gis nañ ne Macky Sall def benn blatt bu am maanaa xëy na pour xool travaux yu mu def ci banlieue bi. ba am ñu mu dajeel ñooñu dogale ko ne ko troisième mandat bi demande sociale la gis nañ ko mel ni aussi Racine Talla dem mu ngi soutenir loolu waaw xam nga ñoom dañu nekk ci seen logique de se de se maintenir au pouvoir et mhm. mhm. parce que boo exercer pouvoir di nga def tout ba ba ba ba nga des au pouvoir mhm. surtout nag ñoom ñi nga xam ne tey jàpp nañ bu ma Sall demee ñu torox jàpp nañ bu fi Macky Sall jógee tey ki lay remplacer Macky Sall dana def euh, chasse aux sorcières mm-hmm. dina leen auditer dina leen perquisitionner dina leen emprisonner. Mm-hmm. moo tax ñoom seen téeméer xalaatul Macky bàyyi nguur gi. kon da nga jàpp lu ñu def yëpp seen propre intérêt la mais Sénégal ñoru leen seen propre intérêt la loo mm. loo looluy dëgg. seen mm. propre intérêt moo tax ñuy wax dana. mais loolu est-ce que du jikkoy politiciens yëpp. waaw mais moo tax ma ni dama leen koy nangul. Mm-hmm. parce que nguur dafa neex. boo bàyyi nguur rek di nga Mm-hmm. laajal ñi nekkoon nguur bàyyi nguur tey mm-hmm. tey ñu ngi dëkk su kaarabat yi di dugg ay clando mm-hmm. seen téléphone sonetul kenn soxlatu leen donc pouvoir dafa am doole am doole boo xam ne bis boo ko bàyyee yëg ko maintenant il faut ñu xam ne nag aussi euh, ci dund doomu aadama nguur bu dul jeex mooy nguur yàlla Macky Sall xam na même bu fi toogaatee day dem donc na organiser ay élection dem saba dem jotee mhm. moo gën ñu ko fiy jële si jëlin bu ñaaw mhm. bañ a déglu ñi nga xam ne ñu ngi koy digal ni ko da ngaa war a toog mhm. parce que tey lu fi am ci ay bot bakkan yuy rot il sera le responsable et j'espère que warul dem yóbbaale deret boobu ay bakkan yu rot si si si si si si si muy bàyyi nguur mhm. di rappeler mbokki internet yéen a ngi toujours ak seen émission nay leer jàkkaarloo ak euh, Moussa Sow Thiam responsable politique jot na nekk aussi euh, départemental conseil départemental bu Saint-Louis aussi bokk aussi wàllu euh, Moussa ñu laaj la tuuti tey déglu nañ ku mel ni Mary Teuw Niane mu ne élection présidentielle 2024 non seulement ku mel ni président Macky Sall dafa war a taxaw def déclaration publique ne du bokk loolu mooy indi jàmm ci réew mi. waaw gis nga loolu man dama ci ànd ak professeur maa ngi koy nuyu de passage mm-hmm. di wax ni tey sénégalais yépp loolu la ñuy xaar xam nga jamono yële avant ñuy installer assemblée nationale bi après législative yi Macky def na benn déclaration. 99 mm-hmm. pour cent sénégalais dañ doon wax ni loolu lay wax day wax ni. bokkatuma élection yi di ñëw naa organiser élection yu libre et transparent bu ko defee ku gañe gañe ñëpp dem seen yoon donc président kii euh, Macky Sall loolu ñuy xaat si moom mhm. mooy li pré li li professeur Marito wax bu ko defoon tey bu ko neexee bu mu wutati garde corps mhm. mun nay dox si mbedd Ndakaar yi dem fépp si Sénégal fu ko neex fu mu demee daan ko tàccu daan ko taragal daan ko sargal xam ni kat lii mu def mhm. woy bu dul fay la dana jàngal Sénégal démocratie dana jàngal nit ñi wan leen ni nguur kenn du ko ñëdd mhm. dana jàngal waa Afrique ni Sénégal c'est un grand pays de la démocratie dana jàngal monde bi loo xam ni mosuloo barewul lu muy am en tout mhm. loo xam ni pour une première mhm. un président sortant organiser élection te bokk si loolu boo ko defee tey dana jàngal Afrique lu bare peut-être def naa ni am na quelque part benn mais wóoruma à cent pour cent en tout cas daal loolu la xaar si moom donc loolu la koy ñaan aussi euh, naka def waa ginnaaw ba mu jógee ci loolu wax na ne élection 2024 xel xalaatul sax nit ñi dem fa cent ku mel ne Sonko ndax bu waxee loolu dafa xalaat ni comme li ñuy wax fan yi yëpp ñu ngi koy bëgg a jàpp ñu ngi koy waaj a jàpp ndax euh, digganteem ak euh, aji Sarr mbir moom ba léegi leerul ci biir waxam sax wax na ne justice rek moo mën a leeral mais nee na xel xalaatul ñu dem élection sans ku mel ne Sonko. Ah, waaw xam nga wax ni xel xalaatul foofu moom du ma ànd ah lu tax. parce que sénégalais yi Ousmane Sonko lañ jox bopp de. non jox bopp mais réew mi aussi dañ ko amee. Mhm. réew mi aussi si dëgg lay dox. Mhm. réew aussi dafa am ay ay charte yu ko ŋànk. Mhm. donc Ousmane Sonko. il n'est citoyen. exceptionnel boo xam ni tey. yoon mënul dal ci koom. donc loolu mu wax c'était souhaitable que Ousmane Sonko dem aux élections deux mille vingt-quatre yi. mais na fekk ni aussi charte réew mi may nan ko koko mhm. may nan ko ko mooy tey ñu bañ ko toppee si dara mhm. parce que yow mi ak man mi tey jii bu nekkee ni yoon dafa mën dal suñu kaw mhm. ba duñu mën a bokk si élection kon loolu war na mën a dal ci kaw Ousmane Sonko seulement nag li gars yi di wax justice bi na tëddee njaaxaanaay ba ñu éliminer Ousmane Sonko parce que c'est un adversaire gênant de taille boo xam ne tey war na mën a accéder au pouvoir war na aussi permettre Ousmane Sonko mu dem élection fekk ni am na si loo xam ni dafa taq ci ci ci deram loo xam ni mhm. yoon da ko war a setal mhm. ba fii may wax ak yow nii gisuma dara dara dara loo xam ni war na ko mën a tam dem ci élection yi mhm. parce que ba léegi jugé gun ko comme jugé gun ko nag mën na ko considérer un un un un candidat un innocent ah, ah. jugé gun ko oui présomption d'innocence condamné gun ko mais nag ni Ousmane Sonko moom élection du am te xalaa xalaatul mu bañ ci bokk loolu aussi man côté boobu dama si wax ne professeur ànduma ak moom ci loolu. waaw mais xam nga bu waxee loolu aussi dafay jàpp ne xëy na li ñu doon def euh, tudd lu sénégalais tuddee jaay doole nguur gi ci ay adversaire politique moo tax mu waxee noonu. waaw xam nga loolu loolu am na nguur gi yàgg na si. Mhm. sànq nee naa boo gisoon ñu def tuuti. Mhm. ñu accélérer procédure euh, judiciaire am. Mhm. en enrôler affaire bi en moins mhm. d' na an. Mhm. ko condamné ko tëj ko. Mhm. c' était parce que su demoon aux élections de deux mille dix neuf Macky day dem deuxième tour boo fàttali ko Macky mu ngi amee mu ngi gagné cinquante pour cent. au premier tour. donc huit pour cent huit virgule cinq pour cent yi nga xam ne tey moo ko permetre mu am majorité absolue. pour dem pour jël pour pour jël nguur gi. ku ci mel ne Khalifa Sall bu bokkoon wala Karim Wade rek da koy perte. donc c' était c' des calculs yoo xam ne tey. gars am nañ information yi quoi moo tax ñu éliminer ko Ousmane Sonko aussi tey mun nañ ko éliminer pour mu bañ a bokk ci élection yi. Mhm. mais aujourd'hui tey ji euh, bokk élection ci Ousmane Sonko. ci mhm. élection yi def naa ne aussi loolu euh, lu ñuy ñaaw loolu bu nekkee ni jaarul mhm. yoon. bu nekkee ni nañ ko war a nañ ko nar a éliminer jaarul yoon. te gis gu ma ba léegi am na ndax am na nañu argument yoo xam ni mën nañ ko mu bañ a bokk. parce que bu fi ñuy wax ni. li jotoon génn si si si si dossier bi muy euh, rapport médical beeg. Mhm. ak témoignage yu ñu dégg. Mhm. loolu yëpp vraiment wax dëgg yàlla amul fenn. Mhm. da ko seetal ba mu foo xam ni euh, taxal nañ fi gis nañ ne Sénégal moom gars yi dañuy politique politique politique rek te askan wi nee nañ sonn nañu dund gi seer na location bi seer na taxawal nañ fi sax benn kuréel bu war a saytu wàllum location bi ak wàllum dund gi mais ba léegi daal gisaguñ dara lu leer. waaw euh, c'est dommage que population bi xanaa di leen masaw coono euh, di leen wax ni euh, liy dal ci population bi métti mm-hmm. na métti boo xam ni fu mu nekk nii amul fenn fu ñu ko mën a jooytoo mm-hmm. kenn leen mënu jooytu muy nguur te nguur moo leen ko teg mm-hmm. léegi fan lañu jëm population bi parce que mënuñu à chaque fois ñuy def ay discours yoo xam ni discours danoo war a wàññi train de vie de l'État danoo war a wàññi loyer danoo warali warali mais à chaque fois xuraas daal di xëddeen mhm. dañuy wax rek mais jamais que ñu appliquer ko wala ñu jël ay mesures yoo xam ni xam nañu lii techniquement c'est pas possible mhm. wala du am mesure d'accompagnement lu ci mel ni baisse de baisse baisse du mhm. tey jii ñu ngi naan décembre lay lañ koy commencer appliquer effectivement mais au préalable qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour que aujourd'hui bailleurs yi mën a gis seen bopp si loolu Mhm. nan ñuy def dañ leen di subventionné wala wala dañuy jël une part du loyer euh, di ko fayal euh, population wala nan la mhm. ñuy def bu nekkee dañuy def surface corrigée tey jii am na sey zone yoo xam ni mënul yem location ak yeneen zone yi. mënoo mhm. wax Kër Massar day yem ak location. waaw mais loolu loolu aussi ba aussi ba Macky di wax prévoir na ko parce que wax na ne mesures yu ñu jël c'est par zonage. waa d'accord c'est par zonage. mais tey jii des fois mën nga dem ci benn zone boo xam ni da ngay jàpp ni. Euh, euh, quartier quartier populaire la. Mhm. mais gis foofu benn bâtiment boo xam ni c'est à coup de milliards. Mhm. parce que espace foncier bi. moo mhm. moo tax des fois di ñi nga xam ne amuñu mooy jënd ay almadi ay Mermoz yooyu yenn quartier yi léegi dañuy rabaatu ci yeneen. léegi yow en tant que homme politique yan solution ngay mettre en place tey. non solution yi solution yi euh, je crois que aujourd'hui solution yi moom toog waxtaan. toog waxtaan concerté wu. ba pare subventionné c'est-à-dire matériaux yi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee mhm. matériaux yi ni ñuy liggéey mais am na si ñoo xam ne tey dañuy dépendre dañuy basé si matériaux yi mhm. pour augmenter seen loyer yi mhm. mais seen kër yi tabax na leen depuis quinze ans vingt ans ñooñu amortir nañ seen location ba fay nañ ko ñooñu war na mën a wàññi cest à bu ñuy wax loolu ñi nga xam dañuy construire dès man peut-être à partir de cette année jàpp jëm fi lekk cinq ans dix ans ci ñu ñu wàññi matériels yi ñooñu bu ñu mettre location ñu imposer leen ñu wàññi mhm. mais ñi nga xam ne aussi seen kër yi existe na depuis des années mun na continuer aussi di di di di di di xoq di di xoñañal population di leen mhm. xoj si si location di di di basé foofu te ñoom ba ñuy jënd seen fer ak seen fument euh, prix jarul loolu mhm. donc daal association consommateurs yi aussi ñu jóg jàppale population yi parce que seetlu na ñoom aussi dafa mel ni mag yi dafa leen am kenn déggatu leen dafa mel ni bon xam nga euh, on on les comprend plus ba gaa yi duggee ba léegi ci cercle boobu amatul kenn ku taxu défendre population. Mhm. Euh, ñu jàll euh, ci dernière question bi lu ñu amoon ci temps mu ngi jeex xam naa lu ñu waroon waxtaanee e, ëpp na lii xam naa am na question yi nga doon xaar ñu lay laaj euh, tey yaa ngi ci coalition wàllu lan mooy avenir politique gu wàllu parce que bu ñu nee wàllu xel yëpp PDS la jëm. donc dañuy jàpp ne tey euh, wàllu bu continuer tey PDS normalement candidat bu war a am pour euh, échéance yi di ñëw PDS la war a génne gis nañ boobu ba léegi PDS mënta am euh, candidat yow bien vrai que jot na nga gën a nekk mais yaa ngi ci biir coalition bi lan mooy avenir politique coalition wàllu. waaw ah, bala ma siy ñëw damay ñëwaat tuuti un peu sur la candidature de de de la mhm. candidature de Macky aujourd'hui. nekk na loo xam ni ku ci mel ne Ousmane Sonko. Mhm. tey Macky nekk candidat moo ko arrangé. Mhm. te Ousmane Sonko bu ñu baree taxawee fii. Mhm. naan Macky du bokk. je surprendre mais du ko du du du ànd ak ñoom si loolu. ndaxte dans l'opposition Ousmane Sonko il préfère que am Macky comme un adversaire que am ku ci mel ne Karim wala Khalifa Sall. parce que travail na sénégalais de telle sorte que xam na moom ak Macky Sall il va accéder au pouvoir facilement. Mm-hmm. par contre bu nekkee Macky demul Ousmane Sonko aura du mal aujourd'hui pour. campagne contre ses adversaires. waaw mais ñi nga mais ñaar ñu nga tudd yëpp gisoo ni Ousmane Sonko moom moo leen vraiment ëpp mérite moom moo leen ëpp aura parce que moom moo xeex. noo ëpp mérite ëpp aura ne veut pas dire que en deux mille vingt quatre. Mm-hmm. bu demee ak ku mel na Khalifa ak ku mel na Karim. euh, il va passer deuxième mm parce que tey ñooñu y aussi benn benn benn benn benn benn peur bi certains des Sénégalais am si Ousmane Sonko il le voit de quelqu'un qui est rancunier mm-hmm. quelqu'un qui est problématique quelqu'un qui est agressif koo xam ne aujourd'hui bu ñëwee au pouvoir il va résilier les contrats da koy wax sax avec les occidentaux mm-hmm. te loolu baaxul si réew mi ñu bare côté boobu lañu ko ragalee Mhm. moo tax tey bu amee adversaire bu mel ni Karim ak Khalifa mhm. ñooñu seen xel mhm. Sénégal yu bare seen xel si ñooñu ni gën dal mm. que Ousmane Sonko mm, léegi ma ñëwaat ci waaw si lale uh-huh. ci l'avenir de la mm-hmm. coalition Wallu uh-huh. c'est incertain mm-hmm. incertain l'avenir de cette coalition mm-hmm. parce que euh, en fait euh, su may wax euh, sax c'est c'est un peu trop dit c'est-à-dire je parler du PDS bi nga xam ne tey jàpp nga ni Mhm. seen suñu candidat. Mhm. ñun wàllu fa la mhm. war a jógee. du man maa ko jàpp mais mooy la réalité aussi. loolu la sénégalais yi jàpp. mais ñoo waaw loolu lañ jàpp. mais il peut se tromper. parce que man mii di wax ak yow. je suis éligible. j'ai plus de trente cinq ans. on m'a contentieux ak justice. je peux être candidat. donc loolu ñoom nañ ko évacuer et cette coalition. est une coalition pour mu nekk candidat aussi foog nga am aura nit ñi xam la. dañ rek jouir de tes droits civils et eh, civiques et eh, politiques eh, et avoir l'âge d'être mm-hmm. présent mm-hmm. constitution bi la wax waaw mais li si des nit ñi ñooy apprécier dinañ voté wala duñu bañ voté ça dépend si nit ñi mais mm-hmm. dama am naa ci droit donc c'est pas à au PDS de nous imposer un candidat dans la coalition Wallu nit ñi sax fu mu nekk nii pratiquement je peux dire que ni nekkatuñ à cent pour cent dans Wallu parce que on en train d'organiser notre coalition. Mhm. pour préparer un candidat en 2024. Mhm. donc si loolu la nekk ba ba ñuy waxtaanaat mais pour l'instant ñun au niveau de la coalition jot na on compte présenter un candidat. Mhm. incha allah ci élection waaye xamagu leen candidat bi kan la mais yéen a ngi waajal. non xamaguñu kan la. parce que dafa am ay leader yu fa nekk. leader bu si nekk ci éligible. am nga compétence yi am nga am nga engagement bi et bon xam nga tu as une base derrière toi. donc ku si nekk dangay ngay dellu sa base waxtaan ak moom bu ko defee ñun bu nu toogee waxtaanaat. ñu xool kan la ñu ko def ko candidat. yaakaar naa ne boobu peut-être xëy na mën la. ah d'accord yàlla na ko yàlla def xëy na xëy na boo ko nekkee xëy na di nga gañe <laughs> waa ñu wax ne loola la ñu indi woon tey euh, ci émission nay leer doon dalal euh, Moussa Sow Thiam di ko remercier di jaajëfal Moussa Sow di la bàyyi nga tàggatoo mbokk internet yi. waa merci Malick euh, di la jaajëfal di la remercier ci invitation bi di wax ni waxtaan bi xaw na gàtt tuuti si man <laughs> maa doon xaar yeneen question mais daal di leen jaajëfal di wax ni aussi bon Sénégal kontaan nañ ci seen liggéey. Mhm. vraiment vous informer vrai juste. xam nga et puis en temps réel quoi di nuyu waa Saint-Louis ñi nga xam ne yéen a may seetaan euh, sama mbokk collègue conseil départementaux yi ak euh, waa mouvement Saint-Louis nouvelle dynamique ak euh, ñi nga xam ne tey ñu ngi foofu ci Pikine sama base affective di leen jaajëfal merci beaucoup merci beaucoup Moussa nekk membre coalition wallu nekk aussi euh, membre jot na ñoo moom lañ doon dajal euh, euh, moom la ñu dalaloon tey ci émission nay leer di tàggatoo di tàggu mbokk internet duñ doon seetaan Sénégal di leen jox di leen jox dig daje ci beneen émission te du yàgg lool dinañ fi ñëwaat xëy na moom sax mun naa mu ñëwaat fi donc di leen jox dig daje ci yeneen émission ndax li ñu war a waxtaanee jamono ci actualité bëri na ñu ngi jaajëfal mbokk internet yëpp.